asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag euh, ki ñu ñëw seet si ñu ngi koy wax Pape Demba paab Demba yaakaar naa ne moom moo jiite MMA u Sénégal MMA bi nag ku ne xam na ne fan yi ah. dafa yëngutu ndax li ko waral mooy rëg-rëg bi nga xam ne mu nga woon ca Singapour doon fa jongante ki ñuy wax Alain Ngalani di doomu Cameroun yàlla dogal nit ñu bëri tiitoon ci mais yàlla mu jëmay doomu Sénégal bi di rëg-rëg ndam léegi nag ñi nga xam ne nii wala boog ki nga xam ne tey moom moo jiite MMA fii ci dëkk bi il faut que tey ñu bëgg a ñëw pour moom maanaam wax ak Sénégalais yi MMA bi kañ la fi dugg lu ko fi dugal ak nu muy doxe est-ce que ñoom athlètes yi jóge fii di dem di compétir au niveau international est ñu ngi ci am seen ndigal wala ñu ngi waxtaan ñoom ci yu mel noonu Pape Demba maa ngi lay nuyu delloo ziar Babacar ñu ngi lay nuyu di la sant di sant sa sa équipe bi yëpp donc effectivement ni nga ko waxee euh, MMA Sénégal fu mu toll nii yàlla def na ko maa ko jiite mais jàppal ni que ki ko ki ko indi fii moom la ñuy wax Maître Dame Seck Maître Dame Seck depuis 2012 la jóge woon Canada yàggoon fa loolu ñëw indi ñu MMA te ñu koy pratiquer depuis 2012 donc tuddee free fight donc au fur et à mesure affaire bi développé ñu ñu ànd ak gars yi professionnaliser ko maintenant di ko tuddee MMA mixed martial arts mais ñun ñi ngi koy def su su la forme de l'amateurisme pour ne pas aujourd'hui bañ a am difficulté ak ministère mooy suñu ministère de tutelle parce que aujourd'hui yu mel noonu il faut ñu autoriser ko autoriser ko pour mun ko def di manière professionnelle d'accord donc euh, depuis ces années-là 2012 2013 que chaque année dañuy organiser ay événements di ko def mais euh, en même mais sous le le signe de l'amateurisme donc euh, yàlla def de plus en plus ñuy dem di former suñu ay combattants et tout ça après bi am benn jour ay partenaires contacté ñu après ñu met ñu en rapport avec des avec des lutteurs et tout ça ci lañ gisee Reug Reug après Reug Reug bokk ci bokk bokku si ñun parce que actuellement suñu benn suñu benn élément bi nekk élément Sénégal mooy nekk coachum actuellement moo nekk ak moom Singapour ñoom ñaar kese ñoom ñaar ñoo fa nekk moom moo koy entraîné parce que kooku sax combattant la woon fii nii euh, Sénégal donc ci la détaché wu ci lañ ko détaché rek rek pour mu koy entraîné. léegi wala wala may ñëw ci Reug Reug dama bëggoon euh, MMA bi ne nga 2012 la fi dugg Dame Seck ko fi dugal bi mu fi duggee ak léegi maanaam ci fan ngeen ci toll ci wàllu liggéey ak li nga xam ne moom mooy état bi ndax am na Sénégalais yu bëri dañ ne li du sport bu ñu wara a pratiquer fii ñen ñi nen nañ ko fi pratiquer parce que am na ñoom dañ ko ragal parce que dañu jàpp ne violence bi daf ci bëri. donc depuis buñ ko duggee fii ba léegi jàppal ni que buddu quoi yëpp fu mu toll nii ñu ngi ci gis seen bopp parce que la base il faut nga comprendre MMA c'est pour les judokas la base c'est pas pour un boxeur uniquement c'est pas pour un lutteur uniquement parce que sport bu complet la boo xam ne dafay demander tànk loxo suuf yooyu yëpp euh, boo xoolee budokaay le plus souvent ñoom ñoo koy ñoom ñooy gën a am aptitude yooyu noonu donc depuis chaque année dañuy organiser comme ni mu ko waxee sànq ay combat yi nga xam ne l'ensemble des Boulouka yi nga xam ne bëgg nañ nekk combattant ak lutteurs yi nga xam ne bëgg nañ nekk ay combattant MMA dañuy ñëw suñu salle ñu entraîner leen boole leen seen biir ñoom ñuy combattre organiser organiser nañ canal Olympia boobu benn événement invité ay espagnol ñu combattre ak suñu sénégalais yi invité nañ ay lutteurs hooligans ay ak yeneen lutteurs Kayla ak yeneen yoo xam ne dañuy combattre ak suñu combattant sénégalais yi ak suñu Boulouka yi invité nañ ay Camerounais au niveau de Manis Ndiaye comprendre ak ay français donc chaque fois dañuy jéem a def ay événements ba pare nag dañ ci boole l'ensemble des disciplines de sport de combat chaque chaque événement chaque gala bu amee day am kickboxing day am boxe anglaise donc juste pour vous dire que ñun dañuy développer le sport de combat d'une manière générale donc booy ñi ngi ci gis seen bopp gars yi ñi ngi ci gis seen bopp parce que auparavant depuis plus d'une trentaine d'années amul benn budoka boo boo laaj instant bi lan la am ci arts amul lu dul ay médailles ak ay ñu ñun on essaye aujourd'hui au-delà de ces médailles et diplômes xaw leen jàppale tuuti financièrement parce que dañuy wut ay partenaires yu ñuy jàppale dañu financer suñu événement booy di jëm cachet donc foofu la ñu yem ci ci li ni nga ko waxee jàppale jàppale foofu la yem mais ministre bi de tutelle ministre des sport aujourd'hui fu mu toll nii pour le moment amagul benn jàppale yàlla mais ñi ngi fay dem di leen rencontrer di rencontrer seen directeur euh, seen directeur de commission yi et tout ça di waxtaan ak ñoom teg leen foofu suñu programme dem nañ fa à deux reprises jox leen suñu programme yi nga xam ne aujourd'hui daf dina leen permettre ñu mën a désengorger la lutte sénégalaise parce que aujourd'hui xoolal lu mel ni bëre six mille licenciés boo xam ne à peu près chaque année cent personnes ñoo ci bëre cinq mille yooyu yëpp wala cinq yëpp fu ñu jëm ñun da lañ ñëw contribuer désengorger un peu la lutte sénégalaise jàppale leen pour booy yooyu mun ci gis seen bopp parce que fu mu toll nii lutteurs yëpp ñi nga bëgg def MMA mais MMA pour def ko il faut nga am yenn aptitude du rek bëre du rek bëre rek rek dafa toog te jóg suñu entre entraîneur am di ko jàng di ko jàng di ko jàng ba xam ne ni que tey mun na nekk un combattant MMA parce que dafa am ay règles yoo xam ne foog nga assimiler ko foog nga respecter ko parce que boo nekkee ci cage bi def yen erreurs yi on te disqualifie te doo ci xam dara. donc yooyu yëpp foog nga assimiler ko foog nga jàng ko te ñun yàlla def na ni que am nañ expertise bi parce que dem nañ gis nañ xam nañ indi nañ. léegi su ma ñëwee ci seen euh, comme ni nga ko waxee yow ne yaa ko jiite fii ndax jiite bi nga ko jiite fédération la bu ñu bu ñu reconnaître comme yeneen fédération football beeg boxe baag volleyball baag yooyu wala. non non non non pour le moment c'est simplement une association une association aujourd'hui qui est composée de d'une quinzaine de clubs dans cinq régions du Sénégal. on est dans cinq régions du Sénégal parce que à la base comme ni nga ko waxee on est des budoka ñun dañuy pratiquer apkido dañuy pratiquer taekwondo dañuy pratiquer taekwondo ITF dañuy pratiquer l'ensemble des sports boxe yooyu yëpp léegi nag dans nos salles dañuy euh, affilié dafay am une section MMA. boo xam ne dafay am section MMA gars yi di ñëw am possibilité jël ay combattants di leen entraîner di leen tàggat en plus de cela dafa am MMA kids mooy la petite catégorie parents yi ngi ñuy confier seen doom pour ñu pour nekk ci MMA bi. pour ñu pour ñu jàng parce que ñu ñu former leen parce que à la base dañuy jàpp ni que violence la euh, maanaam dafa metti non c'est juste des arts martiaux yu ñu mélangé jàngal nit kii mu am yenn aptitudes yi nga xam ne ni bu dee bëree mun na ko bu dee bu dee bloqué mun na ko bu dee tànk mun na ko bu dee loxo mun na ko loolu yëpp dañuy boole jàngal ko xale yi ba en même temps di ko éduquer parce que encore une fois association bi ñu ko composé c'est des responsables c'est des journalistes c'est des banquiers c'est des pères de famille c'est des c'est des euh, c'est des bureaucrates c'est des entrepreneurs ñoom ñoo composé aujourd'hui association bi association bi gaa du ma ne dañuy xeeb mais dama ne aujourd'hui xëy na xamaguñu xamaguñu suñu yéene ñun suñu yéene mooy développer les arts martiaux c'est pas aujourd'hui pour se faire une manne financière newuñu pour ñëw wut ci xaalis non parce que fu mu toll nii ministre bi encore une fois ministère des sports d'une manière générale ñi yàgg nañ ko yàgg nañ joytu euh, à travers chaque fois bu ñu amee micro yàgg nañu wax bu ñu entendre ñu bu ñu déggu ñu mais malheureusement ba léegi amaguñ ci benn retour. rëg-rëg tey kon su ma la déggee muy Bombardier muy Siteu ñooñu nga xam ne jot nañ ko def actuellement moom moo ci ëpp le niveau quoi moo ci gën le niveau actuellement. ci gën leen niveau fu fu fu fu moo ci gën leen niveau parce que one championship bi c'est euh, ligue bu ñu reconnaître la. boo xam ne gars yu bëri ñi ngi leen di jël foofu di leen dugal ci UFC bi donc bu ci góorgóorloo amaat ci yeneen combat gars yi rapidement ñu signé ko contrat UFC. Hmm. loolu moom lu leer la mais euh, il faut que mu def ay combat yu bëri nekkul rek da def benn ñaar ñett ñeent combat non non aujourd'hui il faut que mu am ay combat yu bëri wane ses preuves wane ses capacités après nag gars yi nga xam ne que kii c'est un avenir la ñu mën ko yëgal. est-ce que yow mii di gis rëg-rëg ak tey fi mu toll ak ko gisee noonu ak bi mu compétiré xalaat nga ne mën na defaat ci kanam lu gën a li mu def ni ba dem UFC. bu leer leer leer leer parce que xam nga combattant da nga koy am ci yaram ak euh, maanaam lu la jàngal nga mokkal ko loolu dafa neex mun ne la nga nekk mun nga am doole nga ngand rëy ñu jàngale benn affaire doo ko mokk boo demee mënoo tari loolu baaxul moom il a la chance bu. bi day jàng mokkal d'accord loolu avantage la ci moom moo tax moo tax euh, moo tax combat bii nii bett man bettu ma woon bi ma defee interview bi ci benn télé dama ne carrément Reug Reug aujourd'hui même su fekkee sur les papiers que les mooy favori Reug Reug bu defee benn affaire mooy lan def combat rapproché wàññi distance bi jàpp ko daan ko moo koy mën parce que Reug Reug moo ko sut Reug Reug moo ko ëpp poids te daanaka gis naa ni que Reug Reug moo ko ëpp doole ñu bëri nag bi ma koy wax dañ ma ne non gis ngeen waa ji nangam nangam waa ji il est musclé ça c'est spectaculaire muscle il est juste musclé loolu c'est mais ça n'a rien à voir avec la force aujourd'hui saa waay ji def na Reug Reug booy bi def na def na exactement lu mu waroon def moo tax combat bi dafa gaaw bàyyi ba ngeen seetaan ko di ngeen gis. yow ci dara. seetaanaguma ci dara parce que instant bi c'est des droits réservés aujourd'hui aux organisateurs ñoom ñooy njëkk a publier balaa keneen kenn di laal loolu il faut le respecter mais ñun l'essentiel am nañ am nañu information bi en direct et puis sant yàlla ko waa ji ci li ñu dégg ñun comme information dégg naa def rëg-rëg dafa jëflanteeg moom ba mu abandonné ah waaw dafa jëflanteeg jàpp ko saisir ko yóbbu ko sol comme nu mu defoon euh, Sofiane à peu près waa ji abandonné waaw jeex na ni ko gars yi doon ni ko sénégalais yi doon tiite. Euh, sénégalais yi tiitoon nañ ci ah. tiitoon nañ ci mais xam nga ñun xam nga combattant dañoo yàgg ñun dañoo nekk combattant même bu fekkee président lañ mais dañuy exercer ba léegi. donc du coup dañuy xam à peu la psychologie il faut ngeen xam psychologie combattant aujourd'hui c'est pas parce que ki ay na ci lii rek que yow da ngay xool noo ko ci bañ a fekkee ci loolu parce que euh, su fekkee rek rek aayul ci tànk aayul ci boxe mais am na lu mu aay mooy lan bëre. loolu nag dafay am nu mu koy liggéeyee ba egg waa ji fa sori loolu la def nag waa ji xalaatul sax jéemul sax xalaat fu muy dóoree tànk fu muy dóoree loxo fu muy dóoree kii donc loolu yëpp ay technique la ay tactique la et mais bu fa nekkoon nag di fa benn bennal technique tactique comme ni ko gars yi ñenn ñi di waxee foofu lay am problème foofu laay xam ni que saa waay dese na expérience ci bëre mais li mu def nii wala ni que c'est un vrai combattant. yéen a ngi jokkoo ak moom buy dem di ngeen ko yëg ci yi muy nekk yooyu yëpp yéen a koy xam yéen en tant que association bi. xam nga ñun association bi fu mu toll nii dafa dafa mag dafa rëy c'est-à-dire que donc aujourd'hui on a plusieurs salles xam nga mbër yi aujourd'hui ñoom ñëpp ñu bokk di entraîner ci benn lieu. parce que euh, contexte écurie yeeg affaire yi noonu moo ku ci nekk dañ lay dénk kenn wala ku ci nekk ki nga gën a miin ki nga gën a am affinité ñu bàyyi la moom après nga gérer ñun instant bi ñun ñun dañuy rendre compte rek waaw. tey am na ñoo xam ne ñu ngi xalaat naan est-ce bu continuer du du yàq làmb ji maanaam dem ba rey làmb ji mbër yëpp dem ci MMA ndax bëri na mbër yoo xam ne intéressé nañ actuellement. waaw mais euh, non non non du rey làmb ji parce que bokkul sport bu bokkul la MMA ak bëre. c'est pas pareil parce que combat bi du benn euh, technique yi du benn euh, lépp li ko wër MMA du benn maanaam MMA lan la bëre fi mu yem foofu la MMA commencé di dem. du benn moo tax du benn xam nga mbër dama lay jàpp daan la mu jeex fu MMA damay jàpp daan la continuer donc mënul nekk benn un deuxièmement MMA mënul tëb rek dugg ci. parce que il faut nga am yoon déjà un te naka nga naka ngay def ba ba wane sa bopp ba dugg ci MMA bi fan ngay jëm xam nga yooyu yëpp boo ko xamul doo mun a def MMA ñun aujourd'hui du ñu jël n'importe qui di la dugal ci MMA bi parce que risque bi mooy lan nga am fa blessure bu grave wala am fa ñu am fa mort d'homme loolu loolu loolu duñ ko def dañuy ñëw tàggat la xam say capacité booleel ak sa catégorie nga mun ci génn mun ci exceller su fekkee ni que am nga compétence bi c'est pas parce que mbër nga forcément da war a nekk un combattant MMA mun nga nekk mbër mu mag te doon nekk combattant MMA non mun na nekk. comme mbër yi nekk ay VIP ñu la gis Sénégal naan ñoo mën ci làmb ji kon am na ci ñoom mënuñu nekk ci combattant MMA. combattant MMA mooy li ma wax rek gis nga fi bëre commencé fi bëre jeexee foofu la commencé mais yow su fekkee ci bëre rek nga xam nga yem mais boo duggee ci combattant MMA da ngay am da ngay am problème. aujourd'hui rëk-rëk li mu def jot na jàng jot na assimilé parce que ki ko topp boobu ba léegi depuis son premier combat ba léegi c'est un combattant hors pair moomu ñu koy wax Mamadou juuf moo koy tàggat c'est un combattant hors pair tànk yi ngay tànk ngalan yi ngay wax noonu moom Mamadou Diouf moo gën a neex tànk ngalan yi kon ngalan yow xam nga ko bu baax neuf victoire neuf combat la am xam nga ñaata victoire la am quatre cinq défaites xam nga loolu gëstu woo leen ko yéen da ngeen gis forme bi rek muy def ay affaire rek ngeen ne waay waa ji tey bu jàppee saa waa ji da koy rey Mamadou Diouf moo gën a neex tànk ngalan yi kii entraîné Reug Reug loolu bàyyi leen ci xel. tey kon yow su ma la déggee seen rêve mooy fexe ba Reug Reug wala ñu mel ni ñoom ngeen dugal leen UFC. Reug Reug Moussa togolaak Kayla euh, ak ñeneen ak ñeneen ñeneen ñeneen ñoom ñëpp lañ bëgg aujourd'hui ñoom ñëpp ñu dugg UFC. nombre bi koy compét bi bi bi ci nekk di ci compétition di ay Sénégalais actuellement xam ngeen ni ñu toll. à peu près on a une euh, vingtaine de gosses yi nga xam ne aujourd'hui am nañ licence MMA ñi boo duggee si suñu site MMA bi MMA Sénégal am nañ site di di leen gis di nga gis staff bi ñan ñu ko composé di nga gis un peu palmarès su boy yi yëpp mu ngi si suñu site MMA. kan moo ci jiitu actuellement ci ñoom. Euh, Moussa Togola parce que par catégorie la. ci poids lourd yi Moussa Togola la. ci poids léger yi am na kayila am na aussi poids euh, plume ainsi de suite ainsi de suite par catégorie la. rëg ci ban poids lay compétir. non su moom mi ngi ci super lourd yi. super lourd moom moom moom rëg rëg ci super lourd parce que il fait plus de cent dix cent quinze cent vingt kilos mi ngi ci super lourd yi. tey mën nañ xalaat tey MMA boobu ngeen comme ni ñu ko organisé xam nga euh, amoon na fi daaw fii Reug Reug compété yeneen nit est-ce que yéen a ngi xalaataat pour indiwaat ko fi pour ñu defaat lu mel noonu. bu ñu ci bu ñu ci Matar Ba monsieur Matar Ba ministre euh, des sports bu ñu ci jàppale incha allah bëgg nañ ko parce que am nañ partenaires yi ñu ngi fii toog di ñu xaar sauf que Covid bi moom moo xaw a ralentir les choses te ñun aussi bëgguñu def dara. sans suñu lu lu ñu def dara sans suñu ministre de tutelle parce que jotoon na fi xaw a tere genre sport bu mel noonu parce que ni ñu koy pratiquer bëgg nañ parce que événement bi événement d'avenir la bëgg nañ ko yóbbu fële arena arena bu mag ba arène pas arène nationale Dakar arena sport bi parce que c'est un sport d'avenir c'est un sport boo xam ne aujourd'hui dina jàppale l'ensemble des lutteurs l'ensemble des budokas ku nekk gis ci sa bopp parce que Budoka kii di Budoka bàyyiwul benn sport de combat arts martiaux yëpp ñu ngi ci biir ku ci am aptitude art martial nga ñëw dolli tuuti euh, yeneen aptitude technique mun nga nekk un bon combattant MMA ñu jàppale la ñun am nañu ay contacts dans la sous-région à l'extérieur aux États-Unis en France et partout dans le monde am nañu ay contacts ñu boole leen wutal nañu ay combats et puis. yàlla yàlla jàppale ñu quoi affaire bi jëm kanam. moom mu mel nii ba tey dama ciy des balaa ñuy jeexal am na yeneen combat yu mu signé yaakaar naa rëg-rëg. waaw waaw am na yeneen combat yu mu signé yooyu après di ngeen ci moom di leen ci di di leen gën a ñëw parce que lu jotagul doo ci mën a wax waaw. Bombardier tamit dafa mel nii am na bu mu war a def yaakaar naa France su ma juumulee ah. dégg naa ko rek dégg naa ko mais wóoruma dégg naa ko wóoruma Bombardier ma signalé la gis nga depuis Bombardier ak Rocky Balboa seen euh, bi ñu defoon Suisse. ñun pare woon nañ pour defal leen retour fii fii Sénégal bon après problème de pare woon bon mun naa wax loolu camp yëpp ñaari camp yëpp peut-être pare woon moo tax loolu ko xamoon yàq mais amoon nañ suy ba avancé woon nañ trop ci kii bi defal leen retour moo ko Rocky Balboa fii Sénégal à l'époque donc ça veut du léegi temps yooyu déggu ko Siteu temps yooyu déggu ko déggu ko donc pour te dire rek ñun yàgg nañ ci waaw. léegi fi may jaxle finance Euh, tey da nga ko wax léegi ci sa biir wax nga ne ma ku dem ba IFC mën nga am kase boo xam ne boo ko multiplier mën na yegg tey ba yenn somi xaalis yi comme ñaata ci xaalis. waaw non fu mu toll nii moom bàyyil ma bañ a xayma rek mais jàppal ni que euh, li ngay li ngay am daal macha allah dina doon lu takku mais ci IFC. fu mu toll nii moom da ngay xaw a am métier rek métier rek ngay am parce que booy door a dafa mel ni bëre rek. mënoo mënoo bëreet mënoo ñëw mënoo jóge ci combat bu ndaw di réclamer ay cent millions de cachet wala cinquante millions nangam li li mbër bu ndaw di am ci bëre bu ci bëre bu ndaw loolu la combattant MMA di am ci euh, ci division inférieur yi waaw. non de ii non dese na ko. <laughs> non dese na ko lu bari. dese na ko lu bari non fu mu toll nii moom bàyyi la njàmbur meccat la am. méccat rek la am. rek daal day méccat. rek la am bàyyi la jàmbur. dem ba Singapour. instant bi moom euh, fukki dërëm moom lay am rek moom lay jëndee tàngal bu mu mëccee rek wàcce coono bi mais amu ci amu amugu ci xaalis xaalis bu non non des na parce que yoon bi gudd na yoon bi gudd na. non avenir la avenir la avenir bu baax la moom kay nañ ko dinañ ko gën a encadrer. Euh, gën ko jox ay conseils gën ko encadrer daal d'une manière générale parce que MMA dafa am lu mu laaj aptitude aptitude MMA dafa am lu mu laaj dafa laaj caay-caay dafa laaj am na combat yoo xam ne doo xaar am na xam ne combat yoo xam ne da ngay xaar parce que ça dépend ci adversaire bi parce que adversaire yi ñoom aussi ñoom aussi ñi ngi yow ni ngay entraîner di rey sa bopp noonu la ñuy entraîner di rey seen bopp donc euh, alhamdulilah daal ñi ngi koy am am nañ ci yaakaar ak yeneen gos yi ah, ñoom Moussa Togolaat ñoom Kayla ak ak man mi sax su ma amee combat damay dem. yaa ngi compétir. Ah, waaw waaw. man maa ngi compétir il y a trois ans. waaw. fii Sénégal. ak kan. ak Moussa ah, mooy sénégalais sénégalais. Euh, moom moo gagné woon par décision arbitrale. parce que dama dama ko dóor ba dama sama baaram. yow ñaata combat nga ci def. man dem naa ci lan trois combats waaw. ñaata victoire. deux victoires benn benn. fii nga ko defee Sénégal. Sénégal fii Sénégal noo fële fële moom amateur xam nga côté amateur du compter bugguma bugguma wax waxu amateur. amateur yi di nga dem def ko chaque fois bu chaque fois bu mu doon am congé ci lay dem defi ko ñëwaat mais bon yooyu du ma ci compter quoi da nga dem su ma nee la dóor naa diw door naa diw te xamoo ko amul amul sens waaw. looy tàggatoo ñu lay suivre ci Equivox TV ak looy wax sénégalais yi nga xam ne tamit ñoom ñu ngi dégg MMA ñenn ñi comprendre ko loo leen di wax looy tàggoo. bon li may tàggoo rek di encore di di remercier ñaan yi ngeen ñaanal Reug Reug di continuer leen di leen di ko ñaanal continuer leen di ñaanal MMA Sénégal ngeen jàppale ñu ngeen ñëw adhéré ci MMA Sénégal jënd seen licence gars yi ñu jàppale leen teg leen ci yoonu MMA donc sénégal yi bu leen ragal aujourd'hui lii ki kay ki kay def mooy ki ko xam ku ko xamul du ko mën a def parce que bu bu taxawee sax ragal naa day génn cage bi daw donc jàppaleen ku dem ba dugg cage MMA rek ça xam nga ko d'accord donc xamel boobu noonu ñun ci loolu la ñuy nekk am nañ expertise bi am nañ technicité bi d'accord ku ku met daam nekk sa ginnaaw sa xel day dal moo il a été fois entraîneur national du Sénégal Balla Dieye aujourd'hui bi nekk président fédération taekwondo met daam moo ko yóbbu championnat du monde donc kooku nekk sa ku nekk noonu sa ginnaaw sa xel du dal euh, sa xel dina dal di moins donc ñi ngi ñaan euh, suñu ministre de tutelle encore une fois di ko ñaan solennellement benn audience mu mu jàppale ñu mu déglu ñu xool suñu ambition xool suñu plan d'action pour moo xam ni que lii daal dina jëm dina jëmale kanam sport de combat d'une manière générale.